سيدي المختار وسيدي عالم كلنا على أمه على سيدنا الإمام العي سيد المختار وسيد العالمين لا لا laa ilaaha illallaah tete nga yónneen be laa ilaaha illallaah tete nga yónneen be laa ilaaha illallaah la ilaha illallah du buur yàllay buur laa ilaaha illallaah kenn du buur yàllay buur laa ilaaha illallaah kenn du buur yàllay buur laa ilaaha illallaah rabbana jalila laa ilaaha illallaah rabbana jalila laa ilaaha illallaah rabbana jalila جليلو لا إله إلا الله ربنا جليلو لا إله إلا الله ربنا جليلو لا إله إلا الله ملك لا ملك لا إله إلا الله ملك لا جليلو لا إله إلا الله ملك لا lay jëlilo lay lay ilalaw lay mulko lay lay ilalaw lay lay lay bay lay yonen be lay lay wasadat bay lay yonen be lay lay lay yónneen bi laa ilaaha eh, oh, illallaah eh, oh, ay laay yónneen oh. bi laa ilaaha wasaanaat eh, ay laay yónneen bi laa ilaaha illallaah rombangel yónneen bi laa ilaaha ujaje rombangel yónneen bi laa ilaaha illallaah rombangel yónneen bi laa ilaaha uñaan yee romba ngeen yonnen be looy looy ajireeri baylaya yonnen tey ajireeri yen ajireeri baylaya yonnen be looy looy baylaya yonnen tey ajireeri yen ajireeri yay yónneen bee lay lay laara jaya jireeri yen a jireeri bay lay yónneen bee lay lay laara ayuma na du lay seene alasan bayuma na du lay seene alasan Manatullah Sene Alasan Ayu Manatullah Sene Alasan Bayu Manatullah Sene Alasan La ilaha illallah Illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah oh, La ilaha illallah la la la la la la la dolli ñu leer bay Abdoulaye yàlla buur be ñoo ngi lay ñaan dolli ñu leer Abdoulaye lay la la dolli ñu leer Abdoulaye yàlla buur be ñoo ngi lay ñaan dolli ñu leer Abdoulaye lay la la dolli ñu leer Abdoulaye inna lillahi rabbana yi del si na ma jaal njabootuk seydina imaam alaay cey àddina inna lillahi rabbana wa inna ilayhi del si na ma jaal njabootuk seydina imaam alaay cey àddina ana kuy yedd ab julit bu jooy bu mel ni Baay Abdoulaye kanaan dawal Rasulullaay moo xëy la ko àdduna àdduna bu amul Baay Abdoulaye wetaayu xol jural kenoog lislaam bi wuute na jaatin bi des na àddina ibnu rawalaay isa xëy na dem ñibbi aljana ibnu roowalaay sa xëy na dem ñibbi aljana ibnu roowalaay sa xëy na dem ñibbi aljana ibnu roowalaay sa xëy na dem ñibbi cinq minutes ñun moo dese ci suñuy animation ma bëgg ndeysaan lii anay ba bàyyi Mamadou maa ngi lay ñaan yàgg sa rakk jooju nga ñaanal daayira comme ni nga ko waxee sànq ku sikkarul nag na am tuuti waaye ku sikkar bu baax la nga ñaan yàlla na ko dal bisimilah ba ala lay bay lay eh, lại bài lại em lại bài lại em 拜了。 lay bay lay e, la la bal jalla jalalo mumudo yay bay lay aduna e, la bal jalla jalalo mumudo yay bay lay la la do yaay bay lay la la aduna ala ila mal dala dala lo momodo yaay bay lay woy noo baax ñoo baax doom eela sunu maam ala saal ak maam kumba dooy ñoo baax ñoo baax doom eela la Abdu ne sunu maam ala saal ak maam kumba dooy ñoo baax ñoo baax doom eela sunu maam ala saal ak maam dooy ñoo baax ñoo baax doom ilaala abdu ne yaxlu bay di rasool bay laayay seen maam seen maam lanu yoon ne bay abdu ne al bay di rasool bay laayay seen maam seen maam lanu yoon ne laala abdu ne rasul bàyyi laa yey seen maam seen maam nu nu yónnee laa nu ne al bayti rasul bàyyi laa yey seen maam seen maam nu nu yónnee alaawo bàyyi laa yaa bàyyi yónneen bi ci yow ma di yow laa la yaa yónneen bi ji yoo maa di yoo la yaa yónneen yónneen bi ci yow maa di yoola alaawo bay lay yaaba yaa yónneen bi ci yow maa di yoola alaawo man bay lay dobi kumbondooy yaa ki ci yow maa di yoola kumbondoy yay kiciyo madiola alawo bayla alasani kumbondoy yonen bangayo madiola sidi rola sidi donoy bay lay nabiola yonen nga mam sidi rola sidi donoy bay lay nabiola yonen nga mam sidi rola sidi lay laay sey dey doonay baay laay na layta de lool diino yaay yonnen be lay bay layta de lool mam diino yaay yonnen be lay lay bay layta de lool diino yaay yonnen be lay lay bay layta de lool mam diino yaay yonnen be lay lay bay layta de lool diino yaay yonnen be lay bay layta de lool mam diino yaay yonnen be lay lay tëddal ool diino yaay yónneen be laay baay laay tëddal ool maam diino yaay yónneen be laay laay baay laay tëddal ool diino yaay yónneen be laay baay laay tëddal ool maam diino yaay yónneen be laay laay baay laay tëddal ool diino yaay yónneen be laay baay laay tëddal ool maam diino yaay yónneen be laay laay ati boo dee laay la fi wax mooy yónneen be laay aji boode laay la fi wax bay laay yónneen be laay laay aji boode laay la fi wax mooy yónneen be laay aji boode laay la fi wax bay laay yónneen be laay laay aji boode laay la fi wax mooy yónneen be laay aji bi wax bay lay yónneen be lay loo walay tëdde lool si de yaa moom diiwaan lay loo walay tëdde lool moom si de yaa moom diiwaan lay lay loo walay tëdde lool si de yaa moom diiwaan laay roo laay de lool man seyde yaa moom diwaan laay laay roo laay de de lool seyde yaa moom diwaan laay roo laay de de lool man seyde yaa moom diwaan laay laay roo laay de de lool seyde yaa moom diwaan laay roo laay de dudu lay tëddalool xalifa sa nga ñaanal no lay dudu lay tëddalool xalifa sanga ñaanal no laay laay bay dudu laay tëddalool xalifa sanga ñaanal no laay bay dudu laay tëddalool xalifa sanga ñaanal no laay laay bay dudu laay tëddalool xalifa sanga ñaanal no laay bay dudu laay tëddalool xalifa sanga ñaanal no laay laay bay dudu laay tëddalool xalifa sanga ñaanal no laay bay dudu laay tëddalool xalifa sanga ñaanal ñoo lay lay bay dudu lay tëddalool xalifa sanga ñaanal ñoo lay lay bay dudu lay tëddalool xalifa sanga ñaanal ñoo lay lay bay dudu lay tëddalool xalifa sanga ñaanal ñoo lay lay bay dudu lay tëddalool xalifa sanga ñaanal ñoo lay lay alubadi muxtaaro imaamul aramayni Allah!